Mm-hmm. fi may tëjee seet mooy ci wàllu Ousmane Sonko aussi. Mm-hmm. am na ay wor. ay nit mm-hmm. yoo xam ne def na leen ay maire sax wala. takkal na leen ay ndomba tànk. tey de ñu ngi ci tànk yi war ko wala ñenn ñi war nañ ko ba pare. waaw xam nga loolu moom dafa yàgg ci àdduna. man Sonko yeewi askan wi bu njëkk ba damaa taxawoon daal ne Sonko dafa mel ni lim am xam ko. coalition mënut a ñàkk ci politique. waaye nit ki boo koy gisal tuuti man Cheikh bi. Sénégal coow li dafa bari ba xàmmewuñ dëgg. man dama doon toog man nañ arrière cassette bi man li ma waxoon ci président Ousmane Sonko yàlla suñu borom musu see mooy benn saa te lépp yegg nañ ci. Mhm. waaye booba coow li daa bari te xamuñu liy dëgg te bi ma ñëwee dama ne leen wàllum seet ak wàllum ñaan yàlla danaa ko yóbbu foo xam ne yëf yi mus faa yegg. ñëw wane ci sama ay preuve ci kattanug yàlla suñ borom bi ma ci suturaal waaw ku mel noonu nag bu gisee mbir cheikh bi ak ñuy war a wor ay nit man wax naa lépp. am na dëgg sërëx yoo xam ne nag gis naa ko te duma ko wax yii ci état bi la yii ci fee man fi mu ne xam nga lu may def mhm. dama naan tekk rek àndandoo fa ak sénégalais yi ah déet waay am na lu ma gis ci pale bi ci boroomu tëni ci biir pale bi dama naan tekk toog ci élection yii am na lu ma ci gis loo xam ne gis bu wér la billaahi wal quraan waaye da ngay dem ba da ngay soxora wax sax ndax soo waxee ni ko sénégalais. non non pas sénégalais non man sénégalais yan <clears throat> man sénégalais yi fii boo gisee sëñ sëñ Mara waxoon na ko rek la ñu wax. d'accord politiciens yi ci boppam laay wax. dama am loo xam ne dootuma ñiitalati nit aw yoonam xanaa mu neex ma dëgg dafa yomb di da ngay toog rek diw nangoon nag ñu ci bari dañuy seetaan Mara génn transformer affaire yi léegi sax di ko def ay français lépp mi ngi ñëw ci man waaye loolu amul solo waaye nañ na tekk ndëgg sërëx ga walaay Mor Ndiaye ci dugg. jërëjëf <laughs> Mor Ndiaye xamuñu kan la mais alors dañuy wax ci meneen mbir euh, on va parler de. Mhm. Wally Ballago Seck nag. Euh, parce que gis nañu ne. Mhm. am na benn ay vidéo yoo xamante ne bi waaw di fuité ci internet bi. Mhm. ñuy wax ne sëñ Mara dafa wax ne. Wally sekk day dugg kaso alors man li ma ah. bëggoon indi. baraa maa jox sëñ Mara ka gi mooy. par exemple vidéo yi ma gis ci internet bi. ay site ñoo koy dagg di ko dugal alors que. mat ëpp na Mm-hmm. ay émissions yu ñu defoon mm-hmm. ñenn ñi di ko reprendre alors que yow semaine boobu nga koy wax je me rappelle mm-hmm. bu bi ko policier bi di arrêté mu naan ko attesté ma ci semaine boobu lañ nga waxoon ne Wally dina am problème ak yoon loolu xew donc loolu yàgg na si <laughs> ñi koy dagg di ko dugalaat sëñ Mara ñaan sit ak lan sit ak lan loolu rek la ko dagg ñi koy dagg di ko dugalaat ba ñenn ñi yenn seetkat yi jóg di wax ne seetkat yi. waaw am na ay seetkat yu ci tontu ah j'ai ay hmm. seetkat yu jigéen. am na ay ah. seetkat yu jigéen ak yu góor. dama lay dog danga naan ay mbëtt yu jigéen seetkat moom sénégalais yi sax duñ la may nga toog fi naan seetkat bu jigéen mbëtt mu jigéen ngay wax mu ciy wax mbëtt yi nañ bàyyi di yàqal waal yi mbëtt moo xam ne yor nga sa lu ne lasar yaa ngi may dégg yor lu la doy sëkk nga am fitu toog di wax ci loo xam ne ay kàcc la. est-ce xam nga benn mbir. Hmm. man gëj na maa wax ci waali léegi mu def at. dëgg la léegi mu def at ñu ne dese moomi bi man damaa defaat sorte di wax ci waali loolu amut sa faux mbëtt mu dox ba wër ba dugal saw taat fu ne ba ñëw bëgg a wute aw yóbbal wala aw neexal di ko jaare ci man pour am ko ci waali fii muus du fi naa ne ñeex dama naan la mott ci àll ba te nga toog ci sa loolu te ñu bàyyi sëy yor sa jëkkër di sëy ba noppi foo jekk na fa lasar nañ ko ba te wax ji ginnaaw sénégalais ñoom bëgguñu loo xam ne dëgg la billaahi wal kitaabi billaahi wal kitaabi ñi ngeen jàpp ne ay seetkat lañ yu jigéen nag toog nii billaahi wal kitaabi xamuñu lu ñu reere billaahi wal quraan ku ndayam ñàkk ku ndayam liggéeyu rek dem naan ko seetal ma ni te barke yonenti yàlla Muhammad ñi may jox téléphone ci suuf billaahi wal quraan xam nga lu ñu may wax hmm. dama la bëgg barke Serigne Saliou mbake ah ak ci di ma gis nga moo tax Sénégal dafa foo kuy koo xam ne bu la jotee daf lay ñaan ci suuf nan la daf laa bëgg ba noppi bëgg la xeexeeg waali waali moo war a yeewu te xam ne bu bu dee waali am na daray basira wala am na dara ci yàlla war na xam maaraañas lim ko ëmbal man aw ma jotu nag noono waali am déet aw ma jotu noonoo waali waaye xaw ma seetkan nga moom day gis nee na xanaa gisul ne man gëj na maa wax ci waali nee na day seet de Sénégal kooku ab seetkat la de nee na bi bi dese bi amee damaa génn naa yërëm waali nee ko gisuma waxuma ci waali vidéo yu yàgg la xale yi dagg dugalaat ko li may wax ci waali tey laa koy wax mooy disque d'or bi yow xanaa doo seet te pourtant nee na day seet de ah mbëtt <laughs> mbëtt bombal sa kii ah mbëtt mu jigéen sax nag wax dëgg yàlla buñ daan rëbbi ba jàpp ko dañ naan mbëtt mu jigéen du saf <laughs> mbëtt mu yorutu kii nag moom da da euh, moo tax jaaga jaaga ndayam liggéey na hmm. wallahi jaaga yu xeexal jaaga sama yaay de bis bu ma gisee mu toog ñu dikk ko micro muy tagg génn jigéen wala défendre benn doomi jàmbur ah sama yaay moom sëy lu ëpp loolu nag moom wax dëgg yàlla maa ngi lay ñaanal nga yàgg fi te wér. Wally Ballago Seck ci disque d'or bi la ñuy wax mais avant loolu sax. Mhm. ñu permettre la quand nga. Ah, mhm. bi. avant mhm. nga jaale. moom it daal parce gis nañ la que bi nga dem. waaw. nga dem fa. moo ma war. te bi nga demee ci enterrement bi aussi. Euh, ñu bari ñu ngi doon wax. booba sax nga baal ma ci ci ñii di kàcc rek mel ni ay seetkat mm-hmm. dañoo yab seetkat yi dañoo yab sëriñ si golo gu jóg naan di wax di xasee seetkat akub sëriñ golo gu jóg rek te buñ la lëj mbatee wala ñu seet sa mbir yow wuroo wax ci réew mi golo gu ci jóg rek di attaqué sëriñ si di attaqué euh, ba leen yéen yéen yéen lu leen seetkat yeeg sëriñ si def réew mi mënuñoo ñëpp mënuñoo maase nekk ay journaliste te na ngay gis de dangay gis ab fecckat wala ab koo xam ne bi mu juddoo ba tey defu dara lu neex yàlla kii toog di lu ci kurus moo koo ko toog di ko xas Sénégal tërëdi man waxuma ci Wally Seck armée sax biñ ma fa karee journaliste yi damaa dem sama yoon mhm. te nee nañ ay seetkat lañ de te man waxuma ba pare ñuy jaawale ñaar yu bokkul ne woon dañoo wax ne dëjub zodi bi est-ce que xam nga benn mbir ma leeral sénégalais yi loo xam ne maa ngi koy soog a wax mm. dëjub zodi bi ma doon wax du ma leen nëbb ci li ma yàlla wanoon du ñëwagut sax bokkut ak bu moom waaye coow li ma gisoon na bakkan da cee taxaw. Hmm. ñaari émission yu bokkul la. ba tey de lii ma lay wax ni ay seet kata ko toog wax dañuy defa dañuy jéem a défendre waali waaye chaque jour ñi ngi dugal sénégalais naan xool leen kii rek li may wax ndake du am. ok yenn mbëtt yi jërta yenn mbëtt mbëtt mbëtt jërta fatwaay dama ne woon coowal awo baaba caam lii damaa gis bakkan taxaw ci. du ma ne man la duma ma fëgg sama dënn du ma ne maa gisoon sénégalais yi yor nañ seeni xel te ñooy wax waaye dëjub sudi ba ndax ñaari émission yu bokkul la àggagun ci te loolu moo am te ci kattanug dinañ ci àgg ay heure dëjub sudi bi nga waxoon ci li ma waxoon ca Sen TV àggagun ci waaye waxoon nag yow na la coowal awa baaba caam li bakkan da cee taxaw nga ñaari vidéo la loolu moo am ndam wuma ci yàllaa ma koy wan dépassé naa di xëccoo loolu waaye mbëtt mu fi furi wala mbëtt mu ne lëj mbëtt bëgg a jaar ci waali bëgg a ah, naan waali sonna yéen yéen a sonal waali man gëj na maa génn di avant moomi di faatu ba tey génnuma kenn gisuma fenn sama émission yu jàll lañuy tegaat. dëgg xanaa man du ma toog fii di fenn bàyyi leen coxor gi. da ngeen di bomb. kii yàlla may la ci wàllu gis. Mhm. alors tey boo ñu doon wax wax dëgg yàlla. ci doomu. Mhm. Mhm. Thione Seck ji nga xam ne mooy waale jëm ci wàllu disque d'or mm-hmm.